rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahuma fi xayaati wajal waadi wa tanala bismillaahi rahmaani rahiim tey mooy sunu bindu fukk ak juróom ci sunu muslimu saxiir ginnaaw bi mu jàngalee naka lañ war a jullee doonte jullik suba la indi waaye yeneen julli yi ci jëf ji moom noonu la bu doon julli gee nii mu jàngale bu doon julli gee ñaar ràkk yu njëkk yépp ni nga koy jullee lu dul ne boo jullee ñaar ràkka taxiyaatu rek ngay jàng boo toogee daal di jugaat indi yeneen ñaar ràkk yoo xam ne faatiha dong ngay jàng te ndànk nga koy jàng ah, bu doon jullik tisbaar li ñu wute mooy da moom doo jàng ca kaw ndànk rek ngay jàng boo dullee ñaari ràkka toog dafa attaxiyaatu daal di jugaat indi yeneen ñaari ràkk yoo xam ne faatiha dong ngay jàng nag taaya attaxiyaatu teg ci allahumma salli dooga dooga sëlmal bu leen jullee ñaari ràkk yi mu wax da ngay def attahiyaatu mu jeex nga jóg taxaw dolli ci benn rakk kon gis nga ne eh, noonu la kon nii daal mu jàngale man nga cee xame yeneen julli yépp tey mu indi beneen bind mooy lan maa yajibu alayya qabla solaati loolu am solo la maa yajibu alayya xabla solaati maa yajibu alayya ana lan moo ma war qabla salaati laataa may julli julli kenn du tëb tëb dem julli ci danga ko war a waajal da ko war a waajal moo tax ma ne lan moo ma war ah, lan laa war a def lan laa war a sàmmoonteel bala maa julli bala maa bala maa julli maa yajibu alayya ana lan moo ma war qabla solaati laataa may julli gis nga tomb yi mu ci def nii <clears throat> da koo tënk ci ñeent bari na nag waaye moom da koo tënk ci ñeent gis fii mu def fi waaxid def isnaani def salaasa def arbaa mooy ñeent yii na ko jàpp maanaam bu ñu la ko laajoon <coughs> boo jàngee téere ba noppi bu ñu la ko laajoon danga ko mën a wax bu njëkk bi mu ne lan mu ne an yakuuna jismi nadifan mooy na sama yaram na sama yaram bi set an yakuuna an na nekk jismi nadifan an yakuna mii na sama yaram nekk ji nazifan di aji set mooy euh, sama yaram bu mu am benn sobe bu ci taq bu fekkee damaa joggi woon am saw ci misaal wala day am ay dem àll wala sa loxo bi dafa daggoon am deret ju ci génne yooyu yëpp dafa raset a set an yakuna jismi nadifan mooy na sama yaram bi set <coughs> wa thiyaabi nadifatan sama yére tamit set wa thiyaabi nadifatan sama yére tamit set kon fan ak yi nadifatan ñoo bokk lu ñuy firi tan gi du du ci yàq dara day tegtale ak jigéen rek loola leneen la kon bala maa julli tamit ndeke war naa xool ndeke day du yére yu ma sol rek mën naa julli bu fekkee sama yére yi daa am gone gu ma foban gone gi daan may saw wala daa am basan gu ma toogoon ndeke basan gi dañ caa sawoon wala sama loxo bi dafa daggoon ndeke daa toq ci yére yi kon ndeke de faaw loola damay dem laabal ko ba noppi dem ca robinet ba wala dem ca wutal ma ndox mu laab ma fete ko nii ba deret ja dañ bu dee la bu fekkee mën naa fóot yére yépp bu daa bari da ngay jëlee yére nga xooj ko ci ndox mu laab weer ko doo koy mën a sol kon da ngay wut meneen bubb bu dee fi nga toogoon kat ndeke de saw mi dafa jàll sa yére ba ak si sa yaram bi kon faaw sa yaram ci bopp war nga koo raxas kon fépp fu la sobe taq war nga koo raxas war nga koo raxas même bu fekkee ne tamit yére yi tëqul sobe waaye dafa ñaaw li gën mooy nga summi ko waaw ngi sol yére yu tilim xut doonte xamoo ci benn sobe sax loola daa rafetut ndax tey boo doon siyaare ji nit ku baax dong doo nangoo sol yére yu bon yooyu mécanicien bi wala mason bi nangam bu ñëwoon sa sëriñ dafay ñëw bu ko yëgee bu ko teelee yëg day gaaw summi ay yére yam doon liggéeyee gaaw sol yére yu set ngir lan màggal ko yàlla kay moo gën a mat a màggal moo tax xuzuu ziinatakum inda kulli masjid euh, bu ngeen julli rek day leen day leen defar seen yére du da sol sa sol sa kilo rek dem di julli ji di ko xëcc yére yi nga sol jurut déedéet da nga koy waajal ah, kon wa thiyaabi nadifatun sama yére tamit di aji set loolu mooy bu njëkk bi nee na ñaaral bi nee na lan wa an yakuuna ak mu nekk almakaanu lësi barab bi nga xam ne lii fii dama fay jullee nazifan di aji set hmm. léegi jóge nga ci sa bopp sa yaram set na yére yi nga sol set na laab na lu ci tege fi nga war a jullee foofu tamit nee na foofu tamit na set wicc kon basan gi bu fekkee basan gi kat gone yi dañ cey fanaan li euh, ci joggi di ci def nangam mu am xet wala yu mel noonu kon bul ci julli waaw moket bi nekk ci saal bi bu fekkee toppatoo wuñ ko mu xaw a am xet xaw am nangam am ay suuf am nangam kon bul ca julli bul ca bul ca julli hmm. bu fekkee dafa am sobe nag boo jullee moom julli ga dadul baax bu fekkee amul sobe waaye dafa xaw a ñaaw wala mu xaw a tilim wala yu mel ne boo jullee julli ga mën naa baax de waaye nag def nga lu ñu taamut ndax da ngaa wut barab boo xam ne sa setut nga dem julli ji kon waa ni yakkuuna ak ak muy nekk al makaanu la si barab bi nga xam ne usalli fii ci lay jullee nadifan di aji set moom it barab bi may jullee na set mu nekk barab bu laab ñetteel bi mooy lan mën na an atawadda ak ma jàpp bala maa julli tamit bokk na ci li ma war mooy jàpp waaw kat waxoon ko ko ca ginnaaw waaw ba mu waaju julli daa waxoon ne damay jàpp bu jàpp nam na doo ko jublu xibla doo ko kàbbar kon jàpp mi mënta bu jàpput ba tey du baax bu fekkee dafa am gàllankoor ba mënta jàpp ni ki dëkk bi kat amul ndox mu wër ba sonn amul ndox mën naa tiim waaye saa xum fa in lam tajidu maan alxuraan nee na fa moom bu ngeen amul ndox mën ngeen a tiim wala boog sa sa loxo bi maan da ngaa feebar bu mënoo laal ndox subaa kon da ngay waaye doo jekkee tàyyal rek di tiim loolu boo ko defee julli du baax nee na ba amoo ndox wala boog dañ laa tere ndox ngay laal ngay laal am ndox ndax baaxul sa wér su boobaa mën ngaa mën ngaa tiim tiim mooy da teg sa ñaari loxo fii ci suuf daal di masaa sa xar kanam ba daj fépp comme ni nga daa sëlmoo rek ba fépp daj fekk yéene nga ko moo ne ba tegaat sa ñaar loxo jël loxo bii teg fii ci cati loxo yi ñoddi mu dem ba ci concali nga wëlbati defaat nii ngëpp ko tuuti def nii ñëw masaa ci loxo masaa ci loxo bi boo noppee jël bi ci des defaat nii defaat nii defaat nii bu agsi boo noppee nag la ñaari loxo yi boo jógee daal di li xaam daal di kàbbar mu jeex boo xasee ba julli nag mënoo cee julliwaat bu julli jotaatee faaw da ngay ñeenteel ba nag mooy bu mujj bi mooy lan mu ne an yakuuna ak mu nekk wajihi sama jëmm ilal xiblati di jëm penku su may jëmb su may julli tamit faaw sama jëmm ji dama koy def nii dama koy orienté dama koy jubale penku waaye fekk damay julli def naa lii lépp sama yaram seet na lépp seet na may julli daal di féete nii tamaa maa ko tey kon ba tey julli ko du baax an yàkkoon ak mu nekk waj yi sama jëmm ilal xiblati jëm xibla jëm penku boo jëmee sow wala saalum wala gànnaar du baaxoon nga ne ko luy penku mu ne ay li ma ci jublu mooy ilal kaabatil muazzamati jëm ca kaaba gu màgg ga fil fii màkkatal mukarramati te nekk ca màkkatal mukarrama ay li ma jublu ci xibla mooy ilal jihatil waa kay ilal jihatil kaabati ilal eh, ila jihatil jihatil kaabatil muazamati jëm ca kaaba gu màgg ga jëm ca wàllu kaaba gu màgg ga nga ne ko kaaba ga fu mu nekk mu ne fii màkkatal mukarama ca màkkatal mukarama mooy nii rek bu dee ñun Sénégal nii la ñu féete waaye nag du adduna bépp nii la leen féete am na dëkk yoo xam ne ñoom dañoo weesu màkk ñoom bu ñu julli fi ne dañuy ndax lan kaaba ga la ñuy dàkk nekkul nii rek ngay dàkk déedéet daa fekk yàlla dogal nii fara kaaba ga féete ci ñun am na réew yoo xam ne kaaba ga ñoom nii la leen féete subaa ñoom nii lañuy ñuy def am ñoo xam ne kaaba gi ginnaaw leen féete nii subaa ko bu ñu julli dañuy wëlbatiku ñe ba ca kaaba gi bu ñu julli ñoom dañuy wër kaaba gi nii boo gisee ci télé bi gis nga ko dañuy wër kaaba gi nii ñoom ndax ñoom kaaba gi lañuy jàkkaarloo duñu wër ginnaaw kaaba gi kon li tax ngay jublu jëm nii jàpp ne kaaba gi ngay jéem a dàkk mënu koo gis nag waaye da ngay jublu côté ba mu jublu rek kon noonu la kon loolu bu ñu la ko laajee noonu ko koy tontoo ah lan nga war a def laata ngay julli ne war na ma kat sama yaram bi set wicc sama yére set bi may jullee set ma jàpp ba noppi nag jublu xibla ñun la luy xibla nga ne mooy fa kaaba ga féete fa kaaba ga nekk nga ne ma ca màkkatal mukarram màkkatal mukarram ab dëkk la kon yooyu mooy tontu li maasaa yajibu alayya ana lan moo ma war xab la salaati laataa may julli an yakuna jismi nadifan na sama yaram set na sama yaram set wa siyaabi nadifatan na sama yérey set waan yàkkoona na nekk almakaanu la si barab bi nga xamee ne usalli fii ca lay jullee nazifan di aji set an atawadda ak ba ma jàpp an yàkkoona wajhi ilal xiblati ak sama jëmm jublu xibla ak sama jëmm jublu xibla wala an yàkkoona ak muy nekk wajhi sama jëmm ilal xiblati jëm xibla ay li ma jublu ci xibla mooy lan ila jihatil kaabatil muawamati jëm ca wàllu kaaba gu tedd ga fil makkati fil makkati fil makkati al mukarramati ca makka mu tedd ma ah, bismillaahi tey mooy sunu bind fukk ak juróom benn ci sunu muslimu saxiir ah, ñuy jàng bindub usalli lillaahi usalli lillaahi mu ne usalli lillaahi damay julli ngir yàlla damay julli ngir yàlla su ma demee bay julli daal damay julli ngir yàlla suñ borom subhaanahu wa taala kon li ñu tuddee ngistal mooy julli ngir bëgg nit ñi gis ma ne damaa mën a julli wala nit ñi ne ma dangaa am diine loolu taxumaa julli damay julli ngir jëmmi yàlla rek yàlla rek mu ne ana usalli lillaahi wala boog ana man wasalli lillaahi rabbi damay julli ngir yàlla saa boroom damay julli ngir yàlla saa boroom waxaalixii euh, tey ki ma bind damay julli ngir yàlla mi nga xam ne mooy sama boroom moo ma bind mooma moom moo ma bind waxaalixii wala nga ne ana usalli lillaahi man de damay julli ngir yàlla rabbi wa xaaliqi mii sama boroom tey ki ma bind yàlla mi nga xam ne mooy sama boroom moo ma bind su may julli moom lay jullil aqifu fi salaati damay taxaw ci julli gi bi adabin waxtiraamin ànd ak teggin ak worma bi adabin waxtiraamin ànd ak ay teggin ak worma su ma taxawee di julli damay ne dégg concentré wu ci li may def am ay teggin lool am worma ndax kii julli dafa mel ne daa jàkkaarloog yàlla daa jàkkaarloog yàlla ab sëriñ sax wala ab président la ñu mel noona boo demoon seen kanam da ngay jéem a yaru yarlu di jéem a téye say cër di jéem a euh, rawatina suñ borom kon kii julli dafa mel ne daa taxaw ci kanamu yàlla war na ko wormaal war naa joxe cër bu defee ay caaxaan rek day mel ne dafa ñàkk ay teggin léegi diggante ak boromam mu ne man aqifu fi damay taxaw ci julli gi bi adabin waxtiraamin ànd ak teggin ak worma kon nag laa adhaku gis nga mi ngi lay limal par benn benn duma ree wala alabu duma fo wala atakallamu duma wax wala akulu duma lekk fi ci biir julli gi su ma xasee ba taxaw di julli reer wala ay caaxaan duma ko defati duma fo su ma xasee bay julli du julli duma wax danga am loo jàng li ngay waxee ay lim jublu mooy di wax sa wax sa waxi waxi soxla nii nu ko def du ma lekk duma ma seex dara wala lekk wala naan wala yu ko duma ko def loolu lépp duma ko def ci du ko def ci biir julli gi kon kuy julli ngir yàlla war naa bàyyi xel yooyu yooyu yëpp boo xasee ba julli daal bul caaxaan bul fo bul ree bul kafante bul kafak sa morom concentré rek nekk ci julli gi boo waree jàng jàng boo waree rukkoo rukkoo ba julli gi jeex tàkk ñu xam ne julli gi julli gi jeex na loolu mooy julli ngir yàlla loolu ku ko def julli gi dana la yar dana la tërbiya ci yu baree bari lu bon doo ko mën a def waaye dana la dimbali ci ngay mën a def ndax julli dafa am leer goo xam ne moom la ñu sàkku ci julli gi julli du entraînement mooy sëgg sigg rek mu daal di jeex déedéet julli tàggatu la ak ngir jege suñu borom subhanahu wa taala usalli lillahi damay julli ngir yàlla ana usalli lillaahi man de damay julli ngir yàlla rabbi wa xaalixi mi sama boroom tey ki ma bind aqifu fi salaati danaa taxaw ci julli gi bi adabin waxtiraamin ànd aki teggin ak worma laa adxaku duma ree wala alaabu duma foo wala atakallamu duma wax wala aakulu duma lekk fi salaati ci biir julli gi Raghib TV Raghib kon tey mooy sunu bindu fukk ak juróom ñaareel mooy numéro 17 insha allahu rabbi ci sunu almuslimu saxiir tey <clears throat> euh, gone gi day wax ne uhibbu ummi wa abi uhibbu ummi wa abi Mhm. baatu uhibbu moom jàng nañ ko ay yoon kon warees na koo xam ummi wa abi tamit jàng nañ ko jàng nañ ko ay yoon kon boog nañ ko ci ginnaaw kon mooy dinaa bëgg sama ndey ak sama baay uhibbu ummi wa abi dinaa bëgg sama ndey ak sama baay sama ñaari waajur daal bëgg leen xam naa yey na dinaa leen bëgg ah, war naa leen a bëgg nit day fonk ay waajuram ginnaaw jaamu yàlla li gën a foor li gën a rëy mooy topp say ñaari waajur waxuñu sa sëriñ de sa sëriñ sax topp ci hmm. ginnaaw jaamu yàlla ginnaaw yàlla bu jàllee waajur ñoo ci tegu ne yàlla nag yonent bi ci lay déglu ci lay dugg ak mbooleem xeetu diine yi waaye loolu bu xase ba jàll waajur moo ci tegu lu nag ñu bari liñ yaakaar nga xam da ngay dem sa sëriñ li muy baax baax bala nga koo dem di ko jox àddee wala nga koy siyaara joxal sa waajur ba noppi ay sàggane say waajur dem yaakaar man ngaa jariñu ca sëriñ ba loolu amul benn njariñ njuumte la alxuraan fu mu tuddee yàlla rek bu noppee waajur la ci teg wa qada rabbuka allaa taabudu illa iyaah wa bil walidayni ñaari waajur moom la cee teg mu ngi noonu wa abudullaah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni bu ngeen di joxe yàlla cëram ba noppi waajur moo ca tegu loola nit ki da cee war a yeewu lépp loo bëgg di ko wut bokk na ci li la koy may wormaal sa ñaari waajur wax ak ñoom ndànk bëgg leen fonk leen di leen liggéeyal mhm. kon moo tax mu ne uhibbu ummi wa abi man de damay bëgg sama ndey ak sama baay mu daal jiital ndey nag ndax ndey moo war a jiitu yonante bi ba ko waajee laajee na ko sama ñaari waajur kan laa ci war a gën a bëgg mu ne ko sa yaay mu ne ko ma ci kan mu ne ko sa yaay mu ne ko ma teg ci kan mu ne ko sa yaay doo koy wax sa baay xëy ndey mooy ëmb sonn ba muy am doom sax mën naa mu faatu ja mooy gën a bëgg moo gën a kon moo ëpp àq doon te ñëpp am ndey nga war a jiital boo yoroon benn dong di ko sa yaay nga ko war a jox mu ngi noonu kon mu daal jiital yaay nag wax li tax muy bëgg yaayam bu noppee doog wax li tax muy bëgg baayam lenn rek lay lim nag ndax mënta wax lépp kon mu ne uhibbu ummi wa abi dinaa bëgg sama ndey ak sama baay uhibbu uhibbu ummi dinaa bëgg sama ndey li annaha tuhibbu nii ndax moom kat dafa ma bëgg waaw ku la bëgg war nga ko bëgg wa taatanii bi taami day sonn ci sama lekk bëggul ma xiif day sonn ci samag lekk bëggul ma xiif wa nawaafati jismi wa siyaabi ak setuk sama yaram ak sama yére setuk sama yaram ak sama yére kon dinaa bëgg sama ndey ndax premièrement dafa maa bëgg ndey ni mu bëggee doom jégg na dayoo dem na ba bu naroon faatu naroon am sax moom mën naa faatu mu bëggeel ko ko dara weesuwu kenn mun laa bëgg ni la sa ndey bëgge kon nag kooku war naa ko dellu njukkal bëgg ko ñaareel bi bëggul ma xiif lii tax ma dund mooy lekk ak naan day da ciy sonn waaw su ma xiifee day sonn ba ma lekk day sonn ci ma lekk ba ca tegu bëggul ma tilim bëggut sama yaram sama yaram tilim bëggut sama yére tilim waaw fu ma tilimee ñu summi loola mu fóotal ma ko wala mu sang ma kon ndey bëggul dara lu metti doomam lii war naa tax ma bëgg ko ak lan mu ne wa tazharu euh, day xoole ida maritu su ma feebaree bi jaani bii nekk sama wet su ma feebaree du nelaw waaw su ma feebaree jigéen bu doomam feebare mu am lu koy metti du mën a nelaw jaral na ko mu toog ci wetam bañ a nelaw ba keroog mu tane waaw wa tazharu day xoole isa maritu su ma feebaree bi jaandi bii daal di nekk sama wet daal di nekk sama wet waaw doom donc buy jooy guddi ndeyam day jóg di ko nax ba nelaw muy doo ko nelaw waaye du ko bàyyi muy jooy noonu du ko bàyyi muy jooy noonu wutee góor ñi nga xam ne moom dañ ñaan sa doom ji daf maa tànqal ak daf maa def nànkam gis nga ñu wutee mhm. kon wa tazharu day xoole isa maritu suma ma feebaree bi jaani bi nekk sama wet day nekk sama wet di ma assister kon loolu lu néew la ci lim lim mënoon naa lim lu bari waaye loolu ab tënk la rek ñu ci mën a xamee leneen mu jàll ci li tax muy bëgg baayam mu ne wa bu abi dinaa bëggit sama baay lu tax li annahu yuhibbu ni ndax moom it daf maa bëgg ndax moom it daf bëgg kon yuhibbu ni ak tuhibbu ni jàppal ne benn la jigéen tu ngay jëfandikoo bu dee góor nga def yu waaye benn la li annahu yuhibbu nii ndax moom kat sama baay dafa maa bëgg kon war naa ko bëgg ngir lool wa yastaxilu min lii day liggéey ngir man day dem di liggéey ngir man heure bu xëyee suba génn kër gi moo xam day dem ca marché ba moo xam day menuisier lu mën a def loolu lépp kat ngir bëgg rek waa kër gi di lekk ka naan loolu doo ko tax de ni bu fekkoon moom lu mu lekk dong mën naa léegi am ab téeméer lekk ko mu jeex waaye déedéet day bëgg kër gi di am courant day bëgg gone yi di am saabu buñ sangoo day bëgg ñu xëy suba di ndékk di añ di reer loolu lépp loolu moo waral muy génn moo tax day soxla woo day sonne day di liggéey min aj lii ngir man ngir man ñenn ñi tukki tukki ni mette bàyyi seen ay weeri weeri weer dara loolu dog moo waral ñenn ñi dem di tibb suuf ñenn ñi ñëw di gas di mette ñenn ñi di maçon léeg-léeg sax ñenn ñi ca la ñuy faatu. Ah, ngir lan ngir wut luñ jox seen jaboot rek. kon loolu ko nekk war ngaa bëgg sa waajur ngir loolu heure boo xëy suba ñu tegal la ndékk nga lekk añ jot nga añ ree jot nga loolu yombut de te loolu kenn dong moo koy joxe loolu metti la kon kenn warta fontoo say sa sa waajur moo tax man wayastaxilu min ajli day liggéey yi ngir man wa yashtari lii dafa may jëndal wa lii dafa may jëndal kullama yalzamu nii lépp lu ma war lépp lu ma war a am daal moo ma koy jëndal waaw boo amul yére moo la jëndal yére boo amul dàll moo lay jëndal daal boo amul téere booy jànge moo la koy jëndal boo amul saab boo sango boo amul nàngam boo amul loo lekk boo amul loo naan lépp lépp loo xam dafa aju ci yow da koo soxla ngir nga mën a dund moom moo la koy jëndal wa lii dafa may jëndal kullama yalzamu nii lépp loo xam ne daf ma war mooy dama ko war a am waaw lépp lu ma war a am kon loolu ab tënk la ci bu gàtt ci li tax muy bëgg baayam première ndax baayam da koo bëgg baayam day dem di sonn di liggéey ngir moom tey da koy jëndal lépp lu mu war a am lu mu aajowoo mu tënk ko nag mu ne ana man daal uhibbu ummi wa abi dinaa bëgg sama ndey ak sama baay wa utiuhuma te danaa leen topp dama naa danaa leen topp kama amara nii rabbi ni ma ko saa borom digale kama amara nii rabbi ni ma ko saa borom digale fanaa jàngoon ngeen amara rab yi mooy yàlla digal na ma wala amara nii ngeen jàngoon hmm. kon kama amara nii rabbi ni ma ko sama borom digale sama ñaari waajur daal lii ñu def ci man lépp wax dëgg yàlla dinaa leen bëgg du ma leen yemaleeg dara waaye dinaa leen topp bu ñu ma yónnee ma dem sama xol du ci tànk bul seetaan télé rek ñu yónni la nga sa xol bon ci la nga doon seetaan da nga koo fonk wala ngay wax di céepatu wala nangam nangam loolu kenn du ko def bokk na ci liy waral ak toroxte am nañ ci yàlla musal dinaa leen topp te topp kooku ma leen topp bu du doon dara war naa ko def ndax lii ñu ma defal waaye nag da cee boole yàlla ci boppam digal moo ko mu nekkaat farata topp ay topp ndigalal waajur daa nekk farata waaye nag kañ nga leen topp mooy bu fekkee nag déggaluñ la ak mooy yàlla bu ñu santoon loo xam ne moom baaxut da nga naan sàngara wala demal jëndal ma sàngara wala loo xam ne baaxut ah loolu moom doo leen topp moom ndax loolu mooy lan yàlla mi la bind moo leen gën a kawe te moo la tere loola kon ko bàyyi ci xel waaw kon foofu la ko tëjee ni ma ko saa borom wax naa la léegi ñaari aay yoo xam alxuraan da ciy wax lu mel noona wasee na linsaana yi ngay jàng ci alxuraan yàlla ne dénk naa nit nay rafetal jëme ci ñaari waajuram loolu dama ko ko dénk ndigal la kon nee na uhibbu ummi wa abi dinaa bëgg sama ndey ak sama baay uhibbu ummi dinaa bëgg sama ndey li annaha tuhibbu nii ndax kat moom dafa maa bëgg wa taatanii bi taami de leen sonn ci baat yi baat yi dee leen ko wax niñ ko war a waxee dee ko dégg ni ma koy wax ngeen di ko waxee baat kenn du ko yàq wa taatanii bi taami day sonn ci sama lekk wa nawaafati jismi wa thiyaabi ak setuk samaw yaram ak samay yére samay sër wa tasharu day xoole ida maritu su ma feebaree bi janaa bi nekk sama wet bi jaani bii nekk sama wet nekk sama wet wa bu abi damay bëggit sama baay li annahu yuhibbu ni ndax moom it daf maa bëgg wa yastaxilu min ajli day liggéey ngir man wa yashtari lii dafa may jëndal kullama yalzum kullama yalzamu nii lépp lu ma war a am man nga ko firee noonu lépp lu ma war a am moom ma koy jëndal ndax tollu gu ma fa may liggéey gone moo daa war a jàngi gone du liggéey lii xew gone yi nekk ci ay sareet ak di loolu baaxut kenn du ko def gone na jàng bu demee ba toll ci mag doo liggéey waaye boo nekkee ndaw war a jàng dem liggéeyi ah moom màggee doo xam dara loolu baaxut gone moom yitteem yëpp na ko def muy jàng rek ni ko sëñ Tuubaa waxee ca tasawudu sixaar ba noonu la ko waxee nee na bul am benn soxla lu dul jàng ak jéem a yaru hmm. jàngalool yow jàngalool fu mu ko wax ngi noonu yaa ayyuha sibiyaanu laa tastaxilu anil hudaa wa bil ulumi istaxilu bu leen bëgg lu dul xam-xam ak jub kese gone loolu dong la amul bu am leneen kenn waru ko def loolu leneen képp bu dee ba màgg rek booy liggéey mu doog a liggéey boo màggee fekk jub nga am nga xam-xam nga doog a liggéey waaye ba fekkee amoo xam-xam juboo même boo liggéey ba am xaalis da ko koy yàq taxawaalu jënd ci loo war a jënd lu lii daf may jëndal moom sama baay kullama yel zamu nii lépp lu ma war a am moom ma koy jëndal wax man liggéeyuma ana uhibbu ummi wa abi man daal damay bëgg saa ndey ak saa baay wa utiuhuma te dama leen di topp ñoom ñaar ma kii digalee ma def su ma kee digalee ma def nee naa nag li fekk digaluñu la lu naqari yàlla kama amara nii bi ni ma ko ni ma ko saa boroom ni ma ko saa boroom sante ah, kon nag eh, bu ñu la laajoon ne ah ndax yow danga bëgg sa ndey ak sa baay nga ne waaw lu tax ngay bëgg sa ndey na sama yaay day bokk nañu li tax ma di ko bëgg day sonn ci ma lekk day sonn ci ma set ci sama jëm ak sama yaram tey su ma feebaree du am jàmm su ma feebaree day nekk sama wet du nelaw dinaa bëgg sama baay it ndax moom it daf maa bëgg dafa maa bëgg ngay jëkk a jiital sa yaay sama baay it day dem di sonn di liggéey ci àll ba ngir ñëw rek ma mën a tedd lépp lu ma bëgg it moo ma koy jëndal kon daal ñoom ñaar dama leen di bëgg te topp seen digal ni ma ko yàlla ni ma ko yàlla sante